ab naqar la presse bi yeewoo tey ci altine bi rawatina groupe bi di leeral net ginnaaw ba ñenn ci seeni naataango yi defee accident ba ñett daldi ci ñàkk seen bakkan ñaar am ci ay gaañu gaañu yu métti ba ñu nga fële ci hôpitalu Tambacounda bi la jee nag mi ngi amee ci yoonu Kédougou bi ginnaaw ba ñu jógee ca tournée économique bi nga xam ne moom la président Macky Sall doon amal fan yi ca la ñu dajeeg ab camion ñu daldi mbëkkante ba accident bu métti bi lee daldi ci am ñett ña yi daal di ñàkk seeni bakkan bokk ci taskatu xibaar bi di wuyoo ci turu Abou Sy nekkoon ancien étudiant wu ISEC ak cadreur bi di Yoro Diallo ki nga xam ne moo di Ousmane nag di chauffeur ba dafa daal di coincé ca woto ba ba noonu la ñàkkee bakkanam ñi nga xam ne nag ñoo jot a ci bile jëyee ñu ngi wuyoo ci turu cherno ak Aminata Sow ñoom nag ba fi ñuy waxee ak yéen ñu ngi fële ca hôpitalu Tambacounda di faju di ñaan rek yàlla fëgg seeni bopp ba ñu mën a dellu ci seeni activité waaye ñi nga xam ne ñooy waaye jiitu yi groupe Equivox yëpp ñu ngi koy jaale waa Leeral Net ak seeni mbokk di leen ñaanal fi ñu jëm gënal leen fi ñu jógee